salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne du Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois. Wes Show let's go nañ ko tëgg after coole ja. Hawaya si waaye matadi kasaramara awaga si waaye matadi kasaramara hawaya. ok gars yi tey dañuy ñëw wax si quatre points quatre points yi Niang Xaragne Lo la Tyco ah ki nga xam ni moom moo di maire Selbé at kan dañuy dugal li nga xam ne moom moo di Aïssatou Diop Fall bi nga xam ne moom moo di suisse général ko xam nga temps man dama otin temps dama otin moo tax dama otin dama waaye dama yaa ma gën a nëw quoi mais léegi léegi. ok gars dañuy commencer nga xam ni moom moo di kan moom moo di Niang Kharagne Lo dañ seetaan vidéo bi ñëw. bonjour Euh, café au lait c'est pareil maximum de euh, lait moins de café café euh, viennoiserie omelette jambon fromage yaourt nature nature yaourt nature jus d'orange waa gaay dama bëggoon chambre dama bëggoon xamal ne ñu pain au lait nature yaourt doxnde doxnde xam nga lii ñan ñoo koy def genre personne xam ñan la mooy ñi nga xam ne ay arriviste lañ mooy maanaam bañ nekkee góone pour ñu amoon li nga xam ne moo di biskiram am nga biskiram mooy boo moom yi xam ne moom moo problème la mooy maanaam ñi nga xam ne dund nañ ba waa yaa ma gën a nëw ba keroog ñuy am Snapchat bi muy am Snapchat la commencé lekk loolu te xoolal tey jii nii lii moo leen woon ni ndeysaan loo xam ne tàmmoo ko boo nekkee xale boo màggee xër ci rek xamal ne loolu baaxul ñaa yow wàccuñu dañu naan west wees moo gën a soof mais man sénégalais man ngeen yàpp mais genre nit ñi na ngeen mën a toog di leen suivre du xalal du matin au soir ñu leen di snapchatal ngeen di am lenn loo leen siy gis ngeen si am lenn loo xam ni mën na leen jëriñ genre ñaay nii lépp loo xam nag bu ko defee rek wane ko lépp loo xam bu kii wane na fi lu ne gis nañ fi lu ne anti gisuñu woon sax mais jéem nañ doon wër ba sonn gisuñu kii ñëw tey jii nii lenn nag moo ko manqué bu demee li nga xam ne moom moo di ay ginnaaw gër pour def ko foofu noonu si li nga xam moo di duusam sax léegi mu may ñu ko te kii jour bu nga xam ne bu takkee jabar lépp lu a sekk ak jabaram dina ko wan carrément li nga xam moom moo di sénégalais ñaa ngir yàlla doo suturaal sa bopp parce que yéen ñii booy du du du dof de du reewande de mais wër jom la wër jom tey jii nii yow bu ma fekkoon jom at ñi nga xam ni moom moo di fayda di naan ataa yow bi laa du mën a gis si round boobu noonu sénégalais yi ñoo lay ràngate ngay def lii yow ay jambon ay xaw ma na loolu lekk booy boulet boulet pain boulet moo gën a xoolal pain boulet moo gën a am solo loolu noonu ngay wax noonu est ce que xam ne pain boulet moo gën a jafe ba pare yow nga ne star nga quoi yow star nga waaw da ngay topp ak star yi xanaa ñoo jàngalu ñu la train de vie xanaa ñoo jàngalu ñu ñuy lekkee nag ngay mën a ndekkee di lekk ay saucisson ay ay caakiri ay yaourt lépp nga bëgg ko boole. dama lay wax li nga xam ne moom moo xewoon si li nga xam moom moo di théâtre daaray Kocc yi Alpha ma ne la biir du suur xelay suur il faut arriviste yi nag mel ni ku musul lekk mel ni ku tiit nii yow bu ma juróon du ma la juróon comme doom dama lay waaye dama lay génnee dëkk bi de est du ma la taal sax en tout cas kooku moom waxatuma sax si yow nañ dem si ki nga xam ne moom moo di keneen ki Tyco Tatou mooy maanaam l'homme perverti l'homme boo xam ni moom wax dëgg fi yàlla jom moom it amu ko Tyco man laa xam la moo tax gars yi ko quoi Tyco maanaam mu ne day liggéey quoi jigéen yi nag gën a ñaax jom di jël li nga xam ne moom moo di fépp nag fu ne fàngal ko muy muy dem Tyco Tyco naan day Tyco Tatou quoi jabar ji nag moom man moom rek laa yërëm quoi parce que nag ngay nekkee ni góor yàlla boo xam ne am nga jabar respecté woo sax sa jabar non seulement li ngay def xool awra jàmbur la loo xam ne du faj bu doon médecin bu doon gynécologue sax ñu mën a wax yow fajoo da ngay jàpp di xool di gain si li nga xam mu ñi bu ñu waxee nga naan góor la waaw damay yëg moom góor laa quoi damay noonu yëpp parce que gis nga ne gars yi bëri tànc nañ la foofu noonu ñu ñaax a jom yi rek ñooy continuer ñëw di tatouage si yow ñi nga xam ne amuñu valeur ñooy ñëw di tatouage si yow ñi xam ni amuñu éducation ñooy ñëw di tatouage si yow képp nag laax tat dem nga si tikoo laa lax de valeur amoo ko woon éducation amoo ko woon te jëkkër bu la ci yabal wax dëgg fa yàlla kooku bugg la léegi nag beneen bi nga jël mooy lan pompetaat jigéen yi nga xam dañuy jël seen di ko jox tito jëlaat seen di ko jox tikoo jëlaat seen di ko jox tikoo fu nekk mu jàpp seen yaram di ko kii gaayen mel ni kuy kuy mel ni sculpteur mel ni kuy tabax kii ba pare moom nag sutura sax daf ko amul yéen yéen yéen man jom bi ngeen xam bu fekkoon da kay def si sutura sax ñu mën a wax mais ki nga xam ne lu mu leen defal ne ko fàng lu mu leen defal ne ko fàng ngeen kon ñu di ko topp ba pare nag dig jàpp ko xom ba pare bàyyi bàyyiwaat ko muy dem nii police moo war a jàpp Tyco Tyco dañu war a tëj magasin mu liggéey liggéey góor yàlla mu liggéey liggéeyu nit wala mu liggéey loo xam ne méngoog nag dundu senegal mais jàpp taat jàmbur yi rek di ko vrai pervers nga yow nit day doylu jigéen yi tamit ngir yàlla chaque fois ngeen ne dama bañ jigéen mais am na yenn yoo xam ne yéen koy teg seen bopp xoolal ma kii rek. yaa ko yéen def ko nii gaañ mel ni Halloween lañ nekk gaañ nañ dem si keneen ko waay. doo waat ne mosoo mas jigéen joo xam ne takkoo ko. Hmm. barkat la dafa déedéet déedéet waxtaan wi la déedéet déedéet dama lay wax rek ndax gis nga hmm. lu xaraam doomu aadamaa ngi ciy dox subaak ngoon ci lu leer ngay góor sangu ba set da utub gel déggoo ma mm-hmm. danga nga dend ak moom danga ko raay su bañee bu nangoo nga mbélle ko rekk te am na ñoo xam ne mënuñoo waat ne bañ juddoog tey mm-hmm. ba am soxna wala ñu yore soxna duñ dem mooy yàlla moo tax du ma bëgg di sori maa ngi jégalu ci terme bi parce que du may bëgg ku may tooñ man bu ma dee sama bàmmeel daay tëdd yàlla buy lakk man mii lay lakk man mu yore pettaaw mm. yow lakku la mm. su nekkee damay def lu xaram suñu borom man lay toroxal yow toroxalu la ana luy lu ki sa yoon la la jànq ba woy woykat bi naan lu sa yoon ok gaay dégg ngeen maire bi non bii moom ba ma ci débat yàlla naa de kii du ma wax yeneen wax kii du ma wax sax maire bi du ma wax de mais bi day jaawal li nga xam ne moom moo di def lu bon suturaal ko mooy maanaam sutura ak def lu bon ne ko fàng si kanamu nit ñi. gaa yi kii yéen baa ngeen wax ko quoi nañ dem si li nga xam ne moom moo di madame Autain nañ dem si ki nga xam ne moom moo di femme d'état déjà moom dafa nekk benn journaliste boo xam ni euh, d'une part dama ko fan quoi xam la ma dama fan ko damay wax sincèrement dafa am li nga xam ni moom la ñu wax elle est dafa am li nga xam ni moom moo di dafa gëm boppam. à part li nga xam ne moo di jàng na nag ku ko xool nag xam ni jàng na xam na li muy waxee Aïssatou Diop Fall moom ku koy classe moom na nga ko classe yi réew na ko classe yi lépp mais jàng moom jàng na moom journalisme aussi tamit xam na nu mu koy defee seulement que ni des fois day prendre trop de parti trop de parti lay jël ay moom instant yi nii comme que nekk nañ si biir Youssou Ndour parce que Sénégalais yi dofuñu tamit Youssou Ndour ngay liggéeyal Youssou Ndour Macky Sall la nekkal kon tey jii ni amoo lenn loo xam ni mën nga ko clash Macky Sall keroog ba nga fii clash Macky Sall sa tey da nga ko doon raay raayal rek mais comme aussi tamit Sonko adversaire la Sonko tam adversaire la même man je suis pas d'accord si li nga xam moom moo di Sonko je suis pas Sonko man d'accord ma si lu bëri loo xam Sonko mu ngi koy def mais yow placé woo pour nga ñu mën a wax Sonko nan lay def ak nan la dul def te bu dee lépp loo xam ni wax nga ko si Sonko qu'on se vérité sister at lu ma la sopp sopp parce que man dama la sopp je dis la vérité sa honnêteté dafa ma neex sa direct daf ma neex mais lépp li nga xam ne wax nga ko Sonko yow moom moo nekk si yow de li ma si gën a neex rek mooy maanaam otin bi ñu ci créé rek léegi sénégalais yi tamit koo dégg mun naa la dafa otin dafa kekkee dafa ñeñee leen daal mën naa leen ko wax gars yi respecté naa ko si benn côté mais temps yi moom dafa xaw a dugg si benn side quoi bu njëkk moom joxoon naa ko cër mais léegi dafa xaw a réer dafa am amul repère. en tout cas gars yi loolu moo nekkoon li nga xam ni moo di vidéo bi ñu joxante daje si beneen vidéo Lord Wes la woon ak yéen wasalaam.